situation jàkka nak fimu nek ni nekk rek moy solution bi il faut que ñu daaneel jàkka ndax situation bi euh euh doyna wax bo xamné amatul sax sécurité nit dafi julli tay tay tay ci suba lañu nek lañu lañu sacc suñu ñetti ventilateur yo xamné mi ngoon ci jàkka ji dool ko waat ci nattu bi nga xamné dal nañu kon nak jàkka ji lii solution bi moy ñu raser ko complètement te reprendre at ko da ngeen ñoo fekk sax sank ba légui ñu ngi nekk en réunion di xol yane mesure la jël pour daaneel jàkka ji ak ban date la jël pour daaneel jàkka ji dañ koy tëj su neexee yàlla ak yonent bi amna ñu nak un devis bo xamni defal nañu ko inshallah rabbi devis bobu dal mom lañuy talal suñu loxo julit yi képp ko xamni ne mën nga cey japp nga japp ci devis bi à peu près euh, deux cent millions la loolu nak ah xeyna na ñi nga xamni ñoko ñoo amuñu doole motax ñu ngi talal suñu loxo di talal suñu loxo dal képp ko xamni ne mën nga ñew dimbali nga dimbali ñu ngir yalla ak yoonte bi ba jàkka ji mëna nek nekk jo xamni xam ne jàkka ju acceptable bi mu nekk nii euh, amna ñu à peu près moins de 5 millions yo xamni mi ngi ci suñu keesu jàkka légui nak loola nak ak amna nak ay promesse yo xamni amna waye nak yoy nag nak ñun dal talé nañu loxo jullit ñëpp rek waaw amna nak aussi ben devis bo xamni devis de réfection la bo xamni aussi c'est à peu près 30 millions waaw kooku aussi suñ ko njëkkee am baxna daal di commencé liguey bi su fekkee tamit dañ koy xaase ba nga xamni devis initial bi lañu jël tamit batay baxna mais l'essentiel ñu ngi en réunion pour essayer euh, arrêter jël une décision finale bo xamni dal dinañu permettre su neexa yalla ñu tëj jàkka ji daanel ko liggéeyal